man tawma lu lu tax yéen yëpp yéen ñëpp ngeen dof man loolu moo ma njëkk a jaaxal yow nga dof ki jur dof keneen ki la sa mag xaw ma sa rakk dof he waaye jógal waaye booba tullee ma waay jow damay tullee waay jow kan ngay wax booba tullee ma booba tullee tee ma tulli sa eh damay tulli sa papa léegi laa kam eh, eh yoro eh eh bu eh, ko saaga tulli sa baay yow réew na war tulli sa baay yow tamit. boo tullee baayam ma reprise sa baay yow. kon ma baay. seen baay ma tulli leen yéen seen baay yi ma tulli leen. xaaral ma ñëw reprise sa papa xaaral ma ñëw reprise sa baay. lan mooy ndey muy tëddee sa baay. damaa wóor fii suñu kër fu ma neex laay ngelawee. Eh, eh, eh, ak yow boo tullee baayam ma ma tulli sa baay yow. tulli waat baayam yow yow yow ku réew nga yow. xam nga li nga may wax nii. xam nga li ngay wala seetlu nga li ngay wax. maa toog fee dégg nga naan ko damay tulli sa baay. maa ko wax damay tulli sa baay. ma tulli sa baay yow ma tulliwaat sa baay. ma ma ma reprise sa baay. reprise reprise dafa oh. yow ku réew yaw yow. xam nga bu baax li nga nekk di def nii xam nga li ngay def nii yaa ngi désiré mesure yi nga nekk di jël nii. déglu li ma lay wax gis nga yow lu ma gën a ma gën a métti ci àdduna yow. waaw la eh. jaajëf la pileen. tànn mooy luyee gi ma la luyee yow. waaw waaw ndax pël. bu la nappul ci jaasi. waaw jéem laa napp ci gàllaaj. waaw ragaluma sa gàllaaj ragaluma sa jaasi. ragaluma moom dégg nga li ma la wax. da ngaa am da ngaa yor yooyu. waaw bul fàtte man dama am yoo ma yor. da nga am yoo yor. waaw. ñaari baat ñaari baat te dina sëqataat. na sëkkee. waaw na wàccu. waaw na sëkkee. waaw na gàllankoor bu sëkkatee nga daw yow. déglu ma ma la waaw feneen. waaw feneen. feneen la waaw feneen. xam nga tooñu ma. waaw. fu ko ne da day nelaw déglu déglu fu ko neex lay tëdd fu ko neex lay tëdd fii mu tëddee ni sama buntu néeg la boo ma luy wéyal soo ma luy wéyal soo ma luy wéyal fii maa la fii sama néeg la sa néeg la eh maa ngi tëdd seen baay la xawma bopp yabooy xawma bopp yabooy boo ko nee bopp yabooy ma génn xale yi ni jël jël ko seen bopp léegi léegi ma gis la fi léegi waaw bu ko wax bopp yi aw sax def na ñëw bu ko wax benn bopp yi mu def soo boo ko waxaatee bopp yow léegi ma gis la léegi waaw waxat xam nga bopp jël xawma bii laaj wala laaj sax bu maa ngi ñëw su ma ñara yéen yëpp laa wax leen yéen ñëpp ma takkal leen ngay seen seen seen sama. yaa mën a fen yaa mën a fen kan tey mun fen yow di nga nekk aawo kii nekk ñaareel sa papa nekk ñetteel bi. sa papa nekk fen man man dakoo laay doon dakoo laay doon man damay fen. waaw damay fen waaw waaw baax na. waaw baax na baax na sa si jabar la wax sa baay nekk ñeenteel bi. sama baay nekk ñeent. waaw ah, yow di nga ma seeyal. waaw di nga ma seeyal. dinaa la seeyal. waaw baax na sa baay sa baay xam naa ñooy bokk sëy. waaw baax na waaw ba ma ñëwaat ba ma. lu ma dugg yéen a ma ci dugg. jërëjëf papa. dama la papa. papa yeggal. papa waaye yeggul nga suñ kaw nag. merci beaucoup. très bien. merci papa. fël bi day leew leew. fël bi day jaay bandi. fay bi day jaay waxal waxal. fii la waaw waaw waaw waaw waaw fii la lay fekk waaw yéen tamit da ngeen dama leen di génn kër. dama bëgg nga fël nga xam ne. yéen dama dama leen di toxal da ngeen di faju ji. faju ji ndax li li lii nii mënu ma cee dëkk. ah maa ngi miir fi mu toll nii. fël bi fël bi foog mu xam ne yow dañ laa tëj kaso tëj laa tëj tëj tëj. dama sonn loolu la xamul xamul ne yow ancien bànn nga. papa. Hmm? ñaara baaraam laa taal. papa gisul de. ah. Hmm? ñaara baaraam laa taal. waaw. papa. Hmm? ñaar baaraam laa taal yéen laa wax ne damay li damay damay lijjanti nu ngeen génne kër gi ndax moom dañ may rey ci koñ bi te mënu maa woor chaque jour ma àtte. kenn du la lay. ñun ñoo ngi fi ñun ñoo ngi fi kenn du la def dara. ah sonn na tey. ñun ñoo gérer sa sécurité de père yow on rek. ba ba ba ñaan ko bàyyi bàyyi. gun yàlla la non bàyyil. da nga maa neex. bàyyi ma. Eh. Eh. bàyyi ma. waaw oh, moo koy mujjee suppi di muy yéen. looy demee di tëdd buntu néegu jàmbur. papa koor gi dafa métti ma tëdd. nga tudd seen néeg. waaye fii ku la ñëw ci kër gi man fépp laay tëdd foofu nga laax ma ci kanam waa ji la waa dama koo mel ne jépp ko yooyu waa ji ko defar affaire sànn nga tëdd ba leen ma laa may ndox nga naan damaa woor man dogguma sama koor gi dama la boole dama ko wax kenn ko ko may boole gars yi duñ ko xam mu ngeen kaa waa koñ waa koñ ku nekk ak sa woor la man lu sama yoon ci waa koñ bi waa koñ bi dañuy woor may woor rek wut tiyaaba may wut tiyaaba duñ la boole ñun koo leen boole duñ la mooy chef de quartier bi. chef bi du yoonam ci man. fay dégg naa ku wowul da lay doon. ah, ah bi bu ma dóoree dootu ko def. Ah. déedéet man kenn du ma dóor. déedéet man kenn du ma dóor. ñun ñooy sa garde rapproche. te yàlla moom gëmul nelawul waaw moo tax du ma dog man yàlla kay laayu ko. ah ok. Hmm. Ah, waaw waaw waaw kay loo def